salaamaaleykum salaamaaleykum atu tous nos amis internautes de votre site d' information euh, Dakarnet dañu kontaan bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun Ousin ngeen di àndal ci seen émission bi nga xamante ni mi ngi tudd Gise ak alors tey nag ñu dalal fi ki nga xamante ni ndaanaan la kenn dootu ko présenté su ma jaaree su tur bi waaye ko xamante ni très rarement nag la ñu koy gis site d' information muy def ay émission donc moo tax tey bi ñu ko bu mu ñëwee wuy suñu euh, dañ ci kontaan bu baax a baax kooku mooy Ndongo Ji Ndongo Ji ñu ngi lay ziar di lay bëggee bu baax a jërëjëf maa ngi lay ziar maa ngi ziar waa dakarnet.com mm-hmm. euh, di rafetlu bu baax a baax a baax dalal bi ma dalal fii maa ngi lay remercier bu baax a baax. Mm-hmm. alors ñu war a waxtaanee dinañ waxtaane actualité naturellement mais balaa ñuy dugg si actualité waxtaanee ci musique euh, gis nañ ni seen album bi nga xamante ni mu ngi tudd Yaama Télé Yaama Télé génnoon li nga xamante ni moom mooy deux mille vingt bi euh, malheureusement pas malheureusement ou heureusement ndax dafa génn rek tuuti rek Covid bi dugg. Mm-hmm. c'est vrai que jot ngeen def ay tournées internationales génn ngeen si addina bi. naka ngeen dundee période boobu noonu. waaw naka lañ ko dundee mooy euh, dëgg la génne nañu album parce que ñu bari sax des fois dañu gis ne du ngeen a génn génnewu leen dara wala alors que génne nañ benn album boo xam ne deux mille vingt la génn te loolu euh, album la boo xam ne liggéey nañ ko ci trois trois ans depuis 2017 mm-hmm. lañ ko liggéey finalement mu génn en deux en deux mille vingt mm-hmm. donc naka lañ ko dundee mooy. comme ni àdduna bi dundee rek li xew li nga xam ne mooy mbas mi mm-hmm. te yaakaar naa ni dañuy sant yàlla parce que nekk na benn projet boo xam ne contexte bi mu génn nekk na contexte boo xam ne yombul mais ça veut dire aussi que euh, c'est un album à découvrir mm-hmm. c'est toujours un album boo xam ne mën nañ continuer def promo bi mm-hmm. d'autant plus que accueil bi ñu ci am sur le plan international nekk na maintenant accueil bu exceptionnel parce que def nañ concert yu mag foofu. Euh, récemment dem nañ fi tournée juillet juin juillet. xam nga ak euh, même daaw daawaati jékk aussi demoon nañ ci demoon nañ ci tournée. te vraiment accueil bi nekk na benn accueil bu exceptionnel. et euh, c'est un album boo xam ne vraiment comme li ñuy wax rek saabu du fóot boppam mm. xanaa nit ñi ñooy fexe déglu ko rek. Euh, def nañ ci ñaari clip comme jamono mm. ak euh, ceekule donc euh, am na yeneen yoo xam ne mu ngi ci biir album bi ay morceaux comme Saran Fou ay mm. jot na yaa Tek Tek yaa autant de titres yoo xamante ne ni fii ba abadan buñ ko buñ ko présenter nit ñi mm. nit ñi dinañ ci mën a gis seen bopp alors surtout dañu taxaw si ceekule moment bu ngeen koy bind bind bi sax laa balaa may wax si design bi yenn détail si ban univers la leen fekkoon quoi bi ngeen koy bind waaw ban univers la ñu fekk mooy mooy dañu tàmbali job album bi. 2017 la ñu commencé woon def maquette yi. Mm. par la suite il fallait que ñu am benn benn consensus mooy fexe ba tëgg album boo xam ne euh, au niveau mélodie ak au niveau texte. Mm-hmm. dina mën a méngoo ak jamono. Mm-hmm. mais aussi dina mën a euh, dina mën a. Euh, ñi nekk par exemple ñi xam ne duñ ay sénégalais nekk à Ghana wala Mali wala Guinée di déglu musique bu ñu ko déggee mélodie boobu dinañ ci mën a dinañ ci mën gis seen bopp donc muy ceekule nekk benn chanson populaire boo xamante ne mu ngi mel ne nga ne loolaambee hmm. wala yu demee noonu donc genre mélodie la boo xam ne dafa wër Afrique dafa wër dafa Ghana la jógee mais hmm. dafa donc Fada a a fait le travail de la composition et après on a on a finalisé hmm. euh, ak ay musiciens yoo xam ne dañ ciy liggéey donc mu nekk aussi Euh, morceau boo xam ne presque nekk na le deuxième single bi génn ci album bi ñu présenté ko au niveau international mhm. mu nekk benn clip boo xam ne dañ ci liggéey ak ay designers yu mag a mag mhm. ñoo xam ne vraiment le clip euh, fii ba Afrique de l'Est dañ fa doon dem gars di ñu wax naan kan moo liggéey clip bi mhm. di ñu ci laaj lu bare bare donc mu nekk un morceau boo xam ne euh, dafay traduire un peu comme li ñuy wax li li nasaraan di wax le patrimoine immatériel donc li ñu ci jublu woon mooy mu tombeek jamono boo xam ne africains yi mhm. dañuy revendiquer mhm. seen patrimoine immatériel mooy loo xamante ni comme li comme li nga xam ne moom la yenn borom xam-xam yi doon xeex jamono yu mujj que ça soit ci musée yi que ça soit si suñu histoire mhm. que ça soit si suñu suñu euh, li nga xam ne lépp Afrique ñàkk na ko tu vois ci ci lépp loo xamante ni wàllu science et cetera donc ñun ñun ñu revendiquer waat euh, moomeel googu Euh, moo tax ci biir clip bi da ngay gis ay tableau ci biir comme euh, charte Mandé charte du Mandé nga xam ne mooy presque première euh, ex entre guillemets première constitution bi nga xam ne moom la empire Mandé tëggoon nga xam ne Afrique am na histoire boo xam ne vraiment war nañ ko mën a jiital mm-hmm. parce que boo xoolee li xew léegi yëpp problème yi am yëpp c'est parce que lépp lu nga xamante ni dañ ko tëggal mm-hmm. suñu dëkk yi mm-hmm. nekkul lu ñu moom donc ci biir clip bi message message de fond bi la mooy que am nañ loo xam ne suñu maam yi bàyyi woon nañ ko fi te loolu buñ ci sukkandikoo rek dinañ mën a dinañ moo moo dinañ mën a jëm kanam te loolu mooy jëmmal morceau ceekulee boobu mhm. alors euh, c'est pas pour rien ma laaj la question boobu parce que si biir son bi dama siy gis ay notes yu différent yu bëree bëri ay affaires yu bëri yoo xamante ni dafa retrouvé wu ci benn morceau mhm. loolu moo tax euh, laaj bi ma andi ko mhm. alors bu ñu gën a avancé un peu si si li nga xamante ni moom mooy si actualité musique bi ngeen di def ñu gis ne récemment dañu annulé seen benn concert bi nga xamante ni presque programmé ñoon ko ba pare ba def hmm. affiche bi pub bi lépp jàll ñu jékki-jékki rek ni dañ ko annulé loolu naka naka nga mën a ñëwaatee si mbir mi lan nga ñu siy wax waaw mu nekk loo xam ne lu lu ñu lu ñu bett la hmm. euh, parce que da nga gis ne Sénégal tey jii c'est vrai ñu ngi ci benn contexte gis nañ ne artistes yi pendant deux ans exprimé wuñu peut ñeen ñenn ñi euh, maa ngi ko doon wax sànq sax man xarit man ko xam naa ni moom boo moytul damay jël sama illeer rek dem bay dem waaw parce que musique nekk na loo xamante ni presque secteur la boo xam ne pandémie bi laal na ko bu baax a baax a baax a baax donc ci noonu aussi artistes yi bàyyiwuñu mm-hmm. donc ñun bi ñu demee tournée ñëw toog nañ deux semaines yoo xam ne presque defuñu dara dañ doon toog di naan ah xëy na pandémie bi vague troisième vague bi ñëw na donc nañu xaar mais ci lañ commencé jot ay messages si réseau sociaux yi nit ñi di waxee mais yéen joué leen parce que nit ñee ngi joué donc comme ñun tàmm nañ di tëgg ci benn endroit bu tudd euh, cabane du surfeur euh, ñu ne xaaral ñu organiser foofu ñaari événement parce que amul amul bu ñu bëri jot daara ji ku ko xam-xam ne bon on est sollicité un peu partout dans le monde donc moo tax après euh, incident boobu bi mu amee sax Fada Freddy dafa voyagé parce que dafa am benn projet bu ñu nekk boo xam ne Europe la donc mujjee na donc ñu kale woon date yooyu juste pour a aussi mu coïncider ak benn moment boo xam ne pour ñun euh, même boo xoolee chiffres yi mu ngi doon wàcc et événement yi bëri na dakaar boo xoolee soirée yëpp nit ñi dañuy tëgg mm-hmm. donc on a voulu aussi être en règle déposer une, une autorisation en bonne et due forme malheureusement le vendredi jour concert bi à 13 h ci lañ ma woo ci lañ ma commandant euh, ma Ngor woo mm-hmm. ne ma préfet bi annulé na seen seen événement bi donc mu jur aussi coow lu bari. ban explication la leen jox moom. amul benn motivation. motif ñun liñ ci explication bi ñu joxee rek mooy la raison de la pandémie mais à côté de ça on voit que vraiment euh, pour ñun euh, dañu jàpp ne ci dëkk bi lañ ci dëkk bi lañ bokk ay artistes lañ comme yeneen artistes yi donc on ne voit pas ban raison moo mën a tax ñu annuler ko parce que à côté de de de de endroit boobu ñuy joué amoon na ay yu bëri. Mhm. explication yu bëri na am na ñuy joxe explication yu bari am na ñuy wax ne que peut-être suñu prise de position yeeg yooyu mais man considéré loolu dama jàpp rek ne Euh, le préfet devait motiver ce refus c'est-à-dire au moins ñu am une explication détaillée mmh. mais amuñu ko amuñu ko on a on a pris lot et comme li ñuy wax rek je pense que aar bokk na ci loo xamante ne ni en tout cas en Afrique ou Sénégal dañ ko war a gën a jox cër mmh. euh, c'est pas parce que euh, on est juste des artistes de musique urbaine que peut-être waru ñu considérer suñu liggéey je pense que war nañ ko gën a considérer euh, je vais juste dire que rajouter que euh, li nga xam ne moom la autorité war a xam mooy ñun en tant qu'artiste on a eu à faire depuis deux ans on a fait des événements mm-hmm. en Europe ci période pandémie bi mm-hmm. avec ku xam suñu public xam ne c'est un public responsable mm-hmm. on on joue dans un endroit boo xam ne c'est presque mën nañu wax ne à peu près deux cent trois cent personnes ñoo fay nekk te le port du masque était obligatoire ci publicité yëpp loolu lañ ci def Et on a aussi, comme nous avons un public qui est assez responsable. On a une équipe qui est assez responsable. Donc, on a eu à faire autant d'événements. Yo xamné bo démé ci internet dang koy gis et c'était des événements assis un concert bo xamné parce que période bi tam nekk na ben période bo xamné nit ñi euh, ils sont restés enfermés pendant mm. pendant très longtemps. donc mënoo aussi museler mm. euh, les artistes et les musiciens boo ko defee rek da ngay gën a rey aussi espoir bi nga xam ne moom lañ moom la artistes ci nit ñi mm. ñu ngi koy naqarlu bu baax annulation parce que derrière cette annulation y a eu des charges on avait ñun ku xam suñu liggéey xam ne dañuy installer mhm. logistique bi logistique bi bien avant. Mm -hmm. donc on a on a installé de la logistique donc il a au moins trente à quarante personnes. Personne. qui travaillent derrière les événements de Daara J et tous ces gens là ils ont mhm. dañuy dañuy daaneel waxtaan bi ci actualité bi ah donc euh, mm -hmm. voilà moom citoyen la ci dëkk bi la dëkk naka nga gisee euh, mbir yi nga xamante ni ay mbiri faux bi ay vidéo nit ñi par exemple ñu lay jàpp. di la vidéo wala parfois nga def dara ñu vidéo la publier ko nan nga gis weerante boobu nga xamante ni mi ngi am ci ci Sénégal noo ko gisee. waaw li ma li ma gisee loolu mooy euh, mooy euh, Sénégal boo xamante ne nii euh, comme li ñuy wax rek. Mhm. mooy Sénégal boo xam ne ñi nga xam ne ñoo war a ñoo war a taktal nit ñi. bàyyi nañ seen loxo. Mhm. bàyyi nañ seen loxo te aussi. Euh, toll nañ jamono boo xamante ne ni mënatoo wóolu kenn mhm. donc li ma ciy wax rek mooy aussi yaa yaa lépp la gaay jaxase politique diine lépp lañ jaxase donc du coup moo moo moo waral euh, yi am léegi ci jamono bi ñu toll parce que euh, mën nañu je veux Sénégal mën na nekk réew boo xamante ne ni mën nañu peut-être di réeroo ci ay idées tu vois mais war nañu mën a boole suñu xol pour pour que réew mi jëm kanam mais malheureusement je pense que c'est euh, su may jox tort dama koy jox tort politique parce que politique moo moo moo def ba nga xam ne Sénégal nekk na ci guddi goo xam ne xamuñu kañ lay kañ lay am bët set donc li may wax rek mooy que euh, il faut que nit ñi delloosiwaat seen xel ñu xam ne que euh, cette vie là elle n'est pas éternelle mhm. te à un moment donné ku ci nekk di nga rendre compte man bu ma nekkee ak sama xarit boo xamante ne nii ku ma jege la mhm. ma yéene ko loo xamante ne nii lu safaan la c'est parce que sama xol moo setul c'est parce que xëy na ànd boobu dëgg nekkul ànd bu dëgg quoi donc ci kaw loolu aussi malheureusement comme ni ñu ko wayee ci suñu son le pouvoir et l'argent ça rend fou donc loolu way nañ ko ci album bu mujj bi te tënk nañ lépp foofu pour wane na que lu ci bëri pour répondre sa question li tax nit ñi di ko def xaalis moo tax ñu koy def ñu ci bëri boo ko xoolee xaalis moo tax ñu koy def xaalis dem na ba jël toog ci place xolu nit ñi donc moo tax musiba yi di gën a bëri euh, réeroo gi di gën a am ba pare euh, nit ñi dañu dem ba am bàyyi ma sax moo leen tane donc mu nekk loo xam ne lu ñu lu ñu lu ñu metti la mais ñun suñu rôle mooy toujours di di di lancer alerte album bi bi muy génn biñ koy lancer fekk na boobu sax xëy na euh, li xewoon fii jamono jooju amagul woon te pourtant lépp tënk nañ ko ci album bi ci ay titres yoo xam ne bind nañu wax moo tax may wax ne que ñi nga xam ne ay autorité lañ il faut ñu gën a nekk à l'écoute des artistes que ça soit art plastique art les les peintres les musiciens il faut être à l'écoute de ces boo nekkulee à l'écoute de ces rek da ngay da ngay nekk ci erreur te mare dem si vraiment li am Sénégal man yéenewu ma ko Sénégal parce que Sénégal nekk na dëkk boo xam ne ñu bëri dañ ko naw ñu am jaar-jaar yu yu rafet am ay mag ñu ñu baax ñu fi bàyyi loo xamante ne ni bu ñu xoolee ci loolu rek bu ñu réer mais malheureusement dafa mel dafa am poson bu dugg ci biir réew mi te il faut que ñu ñu taxaw pour que loolu loolu mën a soppeeku. passeport diplomatique yi euh, jënd ak jaay mën nañ cee wax lu baree baree bare parce que xam nga tey jii bu ñu demee ba nga xamante ne nii tukki nekk na loo xam ne dañ koo euh, quelque part dafa mel ne comme li ma bëgg wax mooy euh, dañ ko mit dafa am mit dafa am mit mooy maanaam tey jii dafa mel ne ku tukkiwul rek da ngay dee wala su suñuy réussite wala Eldorado fële la nekk alors que la réussite ouais la réussite elle est là aussi je pense qu'il faut qu'on renverse la tendance il faut qu'on réussisse à à créer un rêve africain tant que créé wuñu loolu on va continuer à maintenir un rêve boo xamante ne ni nit lan la jaral lu ne pour dem et tamit suñu dirigeants yi il faut ji respectent le peuple ñu xam ne que euh, ñun euh, tey ji waruñu weccoo sunu suñu am-am suñu koom-koom waruñu ko weccoo ak dara dañu war a gën a jëmmal li nga xam ne mooy développement euh, au Sénégal bu paree gën a taxawu ndaw ñi. Mm, waaw maa ngi lay remercier bu baax a baax a baax euh, di remercier plateforme bi ngeen nekk nii di leen gën a encourager euh, Dakar Net di leen gën a encourager di wax waa senegal euh, na xol yi juboo nañu tegu ci dëgg nañu nañu xool ci mag ñi li ñu fi bàyyi te ñu xam ne àdduna lépp lépp dafay jeex Euh, vraiment maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax ndongo di la eh yaa télé. ça a été un plaisir de vous servir gis ngeen tey suñu émission gise ak ki nga xamante ni moom la ñu dalaloon muy ndongo di gis ngeen album baa ngi noonu gars yi dem leen ngeen xool ko album bi c'est à voir absolument album bi li nga xamante ni moom la ñuy dund jamono bi ñu toll nii album bi yëpp daal dina ko relaté album bi tudd yaa ma télé ñu leen jox rendez-vous ci beneen émission.